damaa bëgg a xam paxum Senelec bi nag mu leer ci sénégalais yi parce que l'autre jour en commission on nous a parlé de 100 milliards tey ñu bëgg a yokk courant bi yéen xanaa da ngeen a bëgg nit ñi dee nag wala yéen bu ne pas ce qui se passe dans les quartiers là surtout nous qui habitons la banlieue dafa metti nag facture courant boo ko amee 9000 neuf mille francs boo ko yeexee fay tu pay tu pay un taxe ñu bëgg a yokk courant bi wax dëgg yàlla metti na nag metti na trop ngeen waxtaan ci bu baax à propos de la douane, je crois que les femmes, il y a plus de femmes commerçantes qui fréquentent l'extérieur pour acheter des marchandises. 20 pieds, tu payes 3 millions. C'est mooy yomb émergence a monsieur le ministre est-ce que vous n'avez pas pas pris compte de la des doléances des enseignants dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel pays tu seras Nous, ba sama dimbalen leen ñu ci enseignant yi suñ doom la ñu am te bu ëllëgee ñooy yor mi rappel monsieur le ministre Batay l'émergence ne se sent pas par des chiffres ça se sent par la diminution des denrées des de première nécessité de l'emploi des jeunes de nos enfants qui passent pourtant sous l'arbre à, à, à palabre à prendre du thé

lépp leen lebal ba mu doy damay fay ñu fay yéen ñi sax da ngeen di fay nañ leb monsieur le ministre ma wax ni émergence bu ñu nee mille famille de pauvreté ba di leen jox bourse familiale xanaa ne bu émerger xanaa ren au moins ci 2020 bii nag war noo am 50 nag pour cent 50 pour cent yi dem seen bopp yow nag oot yow mii nag yow nag yaa nar a toj réew mi yow parce que monsieur oot oot moom wuy na turam yow yaay def plan bi nga xam ne mooy suturé sénégalais yi seen maigre moyens yi ñu am plan a économie yow bu ñu nee économie ñun dañoo kontaan ne dañuy économiser li ñu yor kas as néew man cee añ mën a reer mën a ndékki yow nga dikk salaamaaleykum kenn fayagu la ñu ne yokk nañ courant salaamaaleykum kenn fayagu la di nga yokk leneen vraiment monsieur Hott tukulóor Samba Ngaari Jama seetaatal li ngay def nag sénégalais yi sonn nañu